muy ju kenn xamul fu mu yem. ziaru isbu tarxiya bu bu màgg la boo xam ne fi mu nu tollu sori na lool am nañ tawfeex nag déggoo jeeg déggoo ceeg sëriñ bi sëriñ bi jàppal ñu bis incha allah le 22 mai 2021 lay doon muy bésub gaaw dina war a tollook ginnaaw bu ñu woree juróom-ñeenti fan yi wala fukki fan yi ci weeru shawal muy atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaay gi nga xam ne mi ngi aju ci weer wi su feeñee alxames wala ajjuma ñu ngi koy defee itam fii ci Touba ci kër Seexul Xaddim gii nga xam ne moo jàkkaarloo jumaa ju mag gi ñuy sant bu wér Cheikh Mamadou Mountakha mi ñu jàppal bis bi. lépp tawfeex sëriñ bi mën a bi.